هنا خدموا قريشا ولا تقدموهم كون نيغي لاي نيو ديلا نيانال يالا جي نيو نك سونو خاريت سونو سيرين شيخ احمد تيجان سيدي توك يال نكو يالا فاي شيخ مي توك بابا موما دال القران الكريم مانك موم تي بن كير بن نيك تي سين كير تي تيواوان سونو غورغو تيد جي Mawlaana Abdul Aziz si fa la àdduna yàlla na ko yàlla gën a dëgëral mu nekk nag suma xarit nekk suma ma barki dem mu def ma jëf bu ma neex conférence Souleymane Thiam mu toog ci tànt bi ma voyage yi jóge voyage ñëw sonn tëdd ndekete nelaw naa bi may génn ma kër la ma téléphoné ne ma Mamor foo nekk pour man sax yéex naa xam ni moom la bi muy coupé la ne ma man la Cheikh si mën ma tànk ñëw ak duna commencé parce que maam Mor lii sa cër la kon noonu rek mooy ànd yàlla na yàgg si di nuyu nag xaw ma sa frère xaw ma sa nijaay sa lépp di Mansour Diop kii toog baayam bi mu génnee àdduna ñu sang ko sang ko tëral ko maa ngi taxaw maam Abdou ngi taxaw sëñ Mansour a ngi taxaw sëñ Mansour daal ne كدل بابا كرسي كي تد مولا داق بند لخوم دفا ييما تي لخوي تبارك الله كن معصور يالنا يالا فايلا نين نيو في نك اك تير يو بري تيوال شيخ الحاج باي سي مغدو ميغا خامني موي روح دائره بي باسكو ولوف نينا نك بو وول وون بيجدين با وكتو وقتو وايي ماودو استغفر الله بفي فام مختار كبن نكول خلام لامب دج نكات امنا في دكار امنا في دوم امنا في رك امنا في سر خلات سرين شيخ جان سيمي اك مانكور جوب كون بوك تبارك الله كوم يابلون دوي نيو rawati na mu jël njabar seydou hadj malik jabal ko fi si yalla yalla fay len ñu ngi len di ziaré di len balu ak di bekk lool ci togaay bi ngeen tok fii dafa am yoo xam ne bu la ko yàlla defalee ba sëñ man ba maam mawda di wax loo yor tey bu ëllëgee bu soobee yàlla di nga yor lu ko ëpp séentuñu woon sax nekk imam ratib parce que nekk ak say lépp ñu raw la fuuf wante ñu am teggin jël lépp tekk sa loxo Mamadou Pouy mi ñuy wax maax moom ñoo bokk ndey ak baay toppul ci man am na ku topp ci man wante duñ kasante kenn ku dul suñu way jur ci kastoor gi dese kastoor deselutu ñu dara bi si jiital nag suñu bàyyi galo jaay li yëpp moom la mu rëddën rëddaam bàyyi ko fi yàlla yóbbu ko mu jël rëdd ba mu rëddoon mu jox ko ma ñu ñu fekkoon mu bind ko mu jox ko mag ñi mag ñi wéel la mu rëddoon fu kon fa tabaarakallahu ñu ngi jiital imam bi di jiital mag ñi ci koñ bi mag tamit mat naa bàyyi ci dëkk ñu ngi nuyu waa daayira bi di la ziara di nuyu am moor Seck Eh, fa tabarakallahu dañu am baaxu nag balaa ñu def conférence ñu présenter conférencier bi loolu mooy sababu wax ji et eh, mu mel na que wax présentation bi du gudd parce que man su ma fi toogoon su nekk di wax cheikh am na xam-xam fii la jàngee lii la def dafay xaw gudd xam naa ci lu bari waaye man awma ma xam-xam boroom xam-xam mooy xam boroom xam-xam cheikh Seydil Hadji Malick di Pape Maodo si di suñu sëriñ et di suñu royukaay tamit euh, Sénégal fi ñu toll nii bari na ku fi am sëriñ topp ci moom di yuuxu di wax mais nga ni sa sëriñ la mais doo nangu mu nekk sa royukaay waaw parce que ci ci ci ci mu jaamale rek nga koy teg mais du nekk sa royukaay Seydil Hadji Malick nag mu nekk di sëriñu daayira bi di suñu sëriñ mais nekk suñu royukaay tamit fa tabarakallahu ci lan lan la nekk suñu royukaay mais ci xam-xamam ci yaram ci tegginam ak ci xam place am xam ki mu doon dégg naa sama turóodóor Seex Seex sa Haaji Mansour si radiyallahu taala anhu ibnu Seydi Haaji Malik dafa daan wax ni bu la ñëpp réeree sama pap Moxtaar Jóob moo koy faral di nettali bu la ñëpp réeree te nga xam sa bopp xam nga mu euh, réere nga xam rakk ci mujj waaw mais bu la ñëpp xamee tamit te nga réere sa bopp yàlla na ci yàlla musal fu bon rek lay mujj kon fa tabarakallah Seydil malik bob bob ci xam-xam bi ci ci tagini ci yar bi ci xam bopam mo tan Cheikh Ahmed Tidiane ni ko nako representer kon présentation bob rek doyna parce que borom xam-xam moy xam-xam borom bopp moy xam borom xam-xam fa tabarakallah mu nek Sénégal nak dafa nek dëkk bu doy wat bu nek ni bu nakare waxe parce que li waji di wax rek mo fi nek muni jàngoro bi gën a bon ci jàngoro yi mooy nit ku yàlla may xel mu gis yàqu-yàqu yu rëy rëy rëy rëy rëy ci àdduna te du ko wax jamono loolu moo fi xaw kenn du ko wax sax te kat fu ñu tàntee rek ñi ñuy yëkkati ñi dul dara ci dëkk bi la les médiocres la ñuy yëkkati loolu moo xew ci Sénégal fi nekk nii kooku yàlla ci yàlla musal daayira bi waaw من يقتل دائم رؤية العين ظالما يسيء ويتلى في المحافل حمده لول بوخو سي سنغال لي يالا نتي يالا موسل واو كون فتبارك الله واخ دي دغ تنس جوتنا تا بريزونطاسيون بي كوم نيما واخ لول لا وون رك مان لوما واخ سي شيخ فيم نيك دي داي داي خاو داي وار مي بي غنا وور بي غنا كور موي بروم خام خام بو تاد بي شيخ سيد الحاج مالك سي مولاي سي سيرين سونو روي كاي moo ko tànn ni ko fi na ko représenté kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf سر مطلسم تحير في متنونه خير أحمدا سر سرك وحده به وقع الأملاك للجد سجدا ¡Vamos! mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ñu ngi leen di ziyaara bu baax ñu ngi leen di ndokkeel it ci seen bis bu tedd bi tabaarakallaahu waaye ñu ngi jiital ci nuyoo bi comme niñ ko doon defee tànk rek Sayyid Cheikh Ahmad Tidiane Haydara sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara bu baax Moulay ñu ngi lay ziyaara bu baax di la ndokkeel di kontaan ci sa teewaay bu tabaarakallaahu mag ñu ñëwoo nit duñu ñu wàcc yoon wi ko ñoom sayyid imam jaarale woon ndax tabaarakallaahu ci loolu lañu miin ci lañu xam nit ki nag su xiifee te tegaloo ko lekk leneen loo ko waxati da koy sonal kon ñu ngi lay ziar bu baax moo lay di la ndokkeel di bég ci jotaay bi di waxit ni ki ñu fi yebal muy sayyid xaaji malik si Maodo yabal doomam jarbaatam Cheikh Mouhamadul Mansour mi bu fi ñëwoon nit noonu la koy defe tey dina ci kontaan ci sa teewaay kon sangu bi ñu ngi lay ziyaara micro bi ñuy waxe li tax mu mën a wax sa barke maam la bu dul woon moom du dem xaaji Malick wax na ko léegi ci xasida bu Cheikh alxaaji Malick si Maodo di nettali di tagg rasulullah kon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ne xale yi fi leen mag ñi jaare rek lañ ko jaare ndax seenu mu baax mooy tax ñuy luññatu sëtu yonent bi suñu amee jotaay yu mel nii rek invité leen ñu ñëw toog ci suñu ñaanoon yee weeku sax yàlla nangu ndax yonent bi li mu wax ku ko def boo ñaanee yàlla mu nangu te loolu la ñoom moo Mor def kon ñu ngi lay ziyaara bu baax di la nuyu di la ndokkeel Xaaji Mansour nijaayam moo ko woo téléphone moom la waxal nijaayam Xaaj Mansour Diop mii la wax moom la waxal mu woo ma wax ak man kon man dama ñëw topp ci gannaaw Sayyid Mouhamadul Mansour mu ànd gunge ci ñu toog teewaayu Cheikh Al Hadj Malick Sy ci daaram ci ay soppeem ci ay am di jàmmam tabarakallahu ñu sawar lool ñëw fi kon buñ ñëwee it ànd ak Al Hadj moomu fekk fi alxaaji mansuur sek di magu tabarakallahu dara ji nga xamne ke ko jiite moy sayyid mamor sek kon ñun suñ xel dal nit mo xir rek bu defee lu bax bëgg lu gëna xelam jëf jo xamne ku ko gis man nga ñaan yewé ko ndax yalla su la narul la fay dula ubbil ay way nga tok di ndax inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin kon alhaji munsu sek ñing lay ziar bu baax di la ndokkel waye nak ni la mëna mel wax deug yalla amna ci lo xam ku ko min ci tiwaawan yu bari du la so fekke mom mo sek muy gam nga nan di mu lay jommal ak yoy da nga xamul rek bo ñewon ci tiwaawan du nga nan ah alhamdulillah ndax te picci dañ wax ne bu juddo ci tag te nawul jaaxali mbokam diggante way juróom wu tedd woowu ak maam Roqaya Malick ndax Cheikh Alhaaji Malick bant yi mu am yépp jigéen ñee ci gën a garaw góor ñi nag la ñu miin ndax jigéen du laaj ijaaza du xëccoo nekk ilimaan mais jigéen ñi mu am a gën a garaw maam Roqaya Malick moomu nga xam ni Pape bu Sekk dama ni moom tarbiyaam ci moom la ko yàlla nattoo kon nag tabaarakallah maam Xafsatu moo daan waqafal Cheikh Alhaaji Malick mooy jur Pape Basirou Diop mu jur Cheikh Al Hadj Mansour mii toog waaw kon ñun jataay bi jasant yàlla rek waaye ñu ñëw fi nag déggaat beneen aaya alquran boo xam ne aaya ba dana tax képp ku doon jàng alquran ci riwaayatu warshin an naafi di nga dem gëstu jiwaat pour jàngaat riwaaya boobu